fan yii yëpp ñu ci social ànd seen Cheikh Ibrahima Keita ni ñu koy defee depuis Liberté 6 mu nekk Liberté 6 di ko def ci jaamu yàlla yi dara Liberté 6. daan jëlee xar yoo xam plus de centaine di ko jox ñi nga xamante ne ñooy jaamu yàlla yi. ah bi mu ñibbisee fii nag ci këram gi nga xam ne macha allah toxu si na fi sanc sanc bu bees fii ci Medina Zac Mbao ah. Euh, ci arrêt Baye Diouf. Ah. ñu continuer def bu yàggul la fi def journée consultation gratuite ñu ko couvrir ko lépp ah ànd ceeg moom ànd ceeg CIK TV tey jii ah tabaski jotati man xar mi sax dama ko ñëwul moo tax ma ni mu xar mu toll ni nag moom macha allah bi mu joxee jaamu yàlla yi ñu social ba noppi ah mu ne nag ah man nag ci fajar gi nii laay jéem a dem daral lu ma am jël ah gis ngeen nii ba mu demee la mu fa indi kon nag macha allah macha allah yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam yàlla na fi yàlla yàlla yàggal. wéral ko yokk koom-koomam yokk wërsëgam yokk xam-xam sa suñu data kay daa bi daal ah. ah the king of kenn du ko laam-laamee ah lu ñu fàng kenn du ko géex dama ne gars yi yeewu leen sa Soundiata Keita du doon tolul nii tolul nii day jool ni Soundiata Keita joole woon di def social ni Soundiata Keita doon ko defee ah. kon ñëpp ñi ah. ca bokk gars yi déwénati leen ànd ak CIK TV ànd ak Cheikh Ibrahima Keita le roi di Mandeng jërëjëfati jërëjëfati macha allah a solo. Ah. Ah.